ñu sadda ko ñu sadda ko ñaari masque ci kaw ñaari masque ci suuf jiim ñu masque ci kaw ñu masque ci suuf ñu masque ronk ñu tomb ko dégguma ko de yaa guñu masul xëcc ko ñu masque néeg ñu sadda ko ñaari masque ci kaw ñaari masque ci suuf ñaari masque ronk baa ñu tomb ko dégguma ko de baa ñu tomb ko yaa guñu masul xëcc ko baa ñu sadda ko taali masque ci kaw juñu masque ci kaw. mi ja raañu masque ci kaw. al raañu masque ci kaw. mi al raañu masque ci kaw. mi ra raañu masque ci suuf. mi ri raañu masque lonk. mi ru raañu tomb ko. mi re raañu sadda ko. mi al raañu sadda ko. mi al raañu masque nekk. mi al ñaari masque ci kaw. mi ran ran. ran ba ñaari masque ci suuf. mi rin ñaari masque lonk. mi run taañu masque ci kaw. mi taa ayin masque ci kaw. mi a ayin masque ci suuf. mi i ayin masque lonk. ñu masque nekk. mi a ñu sadda ko. mi a ah kenn du wax. ah. aja ba xam rek. alif alif. alif waaw. ba. Mm. nu. Mm. ta. Mm. ya. taxawal. alif maa seet ci kaw. mi a. alif maa seet suuf. mi u. alif maa seet suuf. mi i. alif maa seet lonk. mi u. alif ñu tomb ko. mi e. hamza ñu masque ñaari masque ci kaw. mi un. hamza ñu masque ñaari masque ci kaw. an. ñaari masque ci suuf. ñaari mas lonku baña tom lem nunya tom lem taña tom lem yaña tom lem ya ña tom lem ya ña tom lem jim ña tom lem ha ña tom lem xo ña tom lem soot ña tom lem bot ña tom lem dégg ma ko de ro ña tom lem ben Ra ñaata tomb lay am. Ra Ra ñaata tomb lay am. Ra du am tomb Zaay ñaata Siin ñaata tomb lay Siin. Siin. Siin. Ayin ñaata tomb lay may Aliou. Ghayin ñaata tomb lay